على اشتغال بفروض وسنن الحمد لله الكريم ذي المنن على اشتغال بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن أتبعا على الذي من بملاذي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داعي وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منا بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كان امتداه الناس يدخلني في شرك القناس وكدت للأملاح والإقراء أزهد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمد هواي قلل المنام يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركون وأن أطيعك بنهج المصطفى سنته البيداء يا من اصطفى يا غافل الذنوب يا غريب إني عبيد ها هنا غريب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 وخير جيران بحق الطيبين وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية بملكه رقية الصفية وق أذاي أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قد بجاه فاطمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وقرر ونجني ربي وأهل دار ci bis bii nga xam ne bis bii nga xam ne ñoo ngi ko doon def muy waajal màggalug Daaru Salaam Euh, di sëriñ bi jox ñu ndigal ne nañ yeesal dëkk bi euh, setal ko balaa gan yee ñëw euh, ñi sant ci yàlla bu baax a baax nag ndax tàbbi nañ ci niñ ci war a tàbbee waajtaay yi mu laajoon yëpp itam def nañ ko waaye sunu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xam ne mooy jàppandal mbir tamit def na ci ay tawféex yu kawe kawe kawe kawe waaye mu mel na nag loolu suñ ko doon suñ ko dee def am na mbooloo mu baree bari ak nit ñu baree bari. ñoo xam ne ñoo tax loolu mën a am ñooñu nag day am solo lool su bis bi yembee eh, ñu sant leen eh, ñaanal leen ci ndigalal sëriñ bi eh, ñu itam kenn jiitu ci njaboot suñ Moodu Maamun gi nga xam ne ñoom lañ doon liggéeyal sëriñ Abo Muhammad mi nga xam ne moo ko fi nekkal ñoo ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne taxaw taxaw na ko ci bis bi ndax lépp luy taxawaay ak lu mu ci war a taxawee taxawal na kon ñu ngi ko ñaanal mu yàgg fi lool te Euh, sëriñ Cheikh Anta itam ñu ngi koy sant bu baax a baax moom itam euh, fàggu na ay xéewal yu yaatu euh, andi fi waaye naka noonu itam ñi ngi sant sëriñ Galas Mbàkke ñu koy wax sëriñ sëñ Fàllu mu sëñ Modou Roqay moom itam ñu ngi koy sant ndax at mu nekk day ànd ak ñun bis bi bis bi daanaka da koy séddoo ñun daanaka genn wàll lépp la ci ëpp moo koy def. ñi ngi sant mboolem daayira yi daayira yi dëkk ci diggante Touba ak Mbàkke ak Daaru Salaam ak sanc yi ak li ko wër lépp ñu ngi leen di sant. ndax mboolem taxawaay yi ñu doon ñu waxtaanee woon lu jiitu bis bi euh, def nañ ko ba def def bu kawe njort waaye naka noonu itam waa maire Mbàkke ak maire Touba ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax seen taxawaay ci bis bi euh, rafet na lool wax dëgg yàlla waaye naka noonu itam Serigne Sidim Serigne Hamidou moom it ñu koy sant bu baax a baax ndax ak jàppale am na ci bis bi bu baax a baax euh, moom lépp lu ñu nekk rek da ciy da ciy nekkandoo ñun naka noonu itam jigéen ñi tamit ñu ngi leen di sant. Eh, ci nit soxna Ndeye Diop ak soxna Rama ak soxna Ndeye bajaan eh, ñoom itam seen taxawaay rafet na ndax ñoom ñëpp ñëw nañu indi seen i addiya eh, ànd ak ñun bis bi kon ñu ngi leen di sant ñoom itam bu baax a baax ci bis bi waaye di sant itam waa comité organisation bi ñu ngi leen di sant te ndongo lii di wax jiitu ci ànd kook sëñ Maxtaar Wadd ak sëriñ Mamoor Mbàkke ak sëriñ naa Mbàkke ak sëñ Pape Malick ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu àndal comité de organisation bi ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci seen taxawaay waaye itam di beral ak cant sëriñ Abo Mouhamad sëriñ sëriñ ab sëriñ jiili ji sëriñ jiilim sëriñ Abo moom itam taxawaayam rafet na lool te it taxawa taxawaay bi rafet na te am na solo ñu ngi koy ñaanal yéen a ji am eh, ci liggéeyal ko maamam suñu borom defal ko ci lu kawe njortam waaye naka noonu itam journaliste yi nga xam ne ñooy yaatal eh, lépp luy jokkookaay ba ba mën a sori ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax. mu mel ne suñu limee danañ juum waaye képp koo xam ne euh, jàpp na ci bis bi euh, ñi ngi koy sant bu baax a baax waaye naka noonu itam ñi ngi jël ak cant nag boo xam ne cantu sëriñ bi lay doon ak cantu mbooloo moom ma wax yëpp euh, di ko beral ak cant ñi wax waa Touba ca kanam waa Touba ca kanam moom ñu ñu fëkk sëkk ko daat fay jaar seeni machine ba mbooloo mi suñ ñëwee mu doon ak jàppande ci ñoom fépp foo xam ne tamit foo foo xam ne oto yi daa am jafe-jafe fa ñëw nañ fa indi seen i mbalit indi seen i oto tonni mbalit maag lépp loo xam ne lu ñu fa war def def nañu kon sëriñ bi nee na waa Touba ca kanam euh, mi ngi leen di sant tamit bu baax a baax waa waa waa waa Sonas waa waa Sonasen ñoom itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax ak képp koo xam ne ni liggéey bi ñu doon liggéey ah suñu borom nangul ñu ko euh, ci barkeb sëriñ Touba ndax liggéeyal sëriñ Touba moom moom rek am njariñ euh, ndaw yi ni ma koy faral di waxee rek yëngu yëpp baax na waaye nag yëngu yi dafa am yëngu yu ci ëpp njariñ waaw kenn ku ne la nga ne di ci yëngu baax na ñu ne ci sport di ci yëngu baax na ñu ne ci làmb ji di football kenn ku ne la nga la nga cay def nag yëngu bu ci gën liggéeyal Sëñ Tuubaa dafa amul kon ndaw ñi yëpp maa ngi leen di wax nañ gën a sóobu ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nañ gën a sóobu ci njub nañ gën a sóobu ci eh, dana rëcc lu tax jëfaltoon lu ëpp lool ndax tawfeex ji nekk ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa eh, kon suñu mbokki ndaw yi maa ngi leen ci soññ bu baax di leen ci gën a tàllal loxo bu baax a baax eh, journaliste yi itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax Eh, ci teew gi ngeen teew ak jàpp gi ngeen jàpp ci bis bi ndax Daaru Salaam moom koy faral di waxee rek dëkku Serigne Touba la boo xam ne dafa nekkoon ci xolu sëriñ bi muy dëkk boo xam ne dafa am ay jagle yu baree bari yoo xam ne suñu borom daf ko fee def loolu nag doonul am lu ñu ndamoo waaye suñu borom moo loolu itam di ay jagle eh, yoo xam ne nii eh, Daaru Salaam kenn kenn fekk ko ci doon dëkk boo xam ne dafa nekk ci xolu Serigne bi nga xam ne sëñ Touba dafa bàyyi woon xel Daaru Salaam daf koo joxoon sëñ gaawaan waaye musta da jóg ci xelam musta jóg ci xolam diirub lim nekk ci géej gi waxtu wu ne day ñaan boromam ne ko nag ma delloo si Daaru Salaam mu doon dëkk boo xam ne njaboot sëñ Tuubaa gépp dañ ko bàyyi woon xel euh, mbooleem euh, këri sëñ Tuubaa yi fi mu def dara fépp kenn ku ne bàyyi woon nga xel